mais yow asame woo ñu. vraiment dañoo ñëw nga teral ñu. kon ah ñun bu ñu la potewul gorewuñu. Ah ah ñaata at ñu ngi fii sonn depuis 2010 ba léegi on a vécu ça. suñu yaay feebar. suñu papa yi feebar suñu doom yi. ma sonn ay vacciné nañu ñu bàyyi suñu liggéey ñu ñëw suñu sàpporo bopp. voilà est-ce que c'est normal. gisuñu état gisuñu dara nous sommes fatigués mais tu nous as pas assommés c'est sérieux bu la neexoon da ngay banque mais lii nii yow la dañoo ñëw ko yombalal ñu ko kon ñun bu ñu la gërëmul gorewuñu parce que gisuñu kenn ku ñu war a faj du mairie du dara waaw li ñuy wax dañ koy wax te te te nous sommes des musulmans et fiers d'être musulmans booy dama daguma la bu la yàlla gore ba mu ñëwee fii waaw ñu wax ko suñu problème mu dem waaw ñu naan waaw madame la ministre waxu ma leen leen a dimbali dëgg du la promettre dara man a gars yi toogal dëgg ak alxuraan ko da leen dimbali dëgg dëgg ma ne dañ ñoo fekk si ndox mais ñu si digg géej ñuy ku ñu sauvé ñu yëkkati ñu loxo nii ñu dimbali kenn ku ñu dimbali ñu xëcc kooku kooku mënu la fàtte bu dee dëgg yàlla kooku mënu la fàtte si àdduna parce que dañu dañuy nekk xam nga nu mu mel mm. nga kenn dimbali la nga yow nga ñu si kaw xëcc ñu kon yow mënuñu la fàtte jamais de la vie ah jamais de la vie. ok jamais. li nga bëgg yàlla la ko yàlla defal yàlla la yàlla teral li nga bëgg a def yàlla la ko yàlla ñoom. la solution rek. Assome Assome Assome lay gërëm ñun seenu quartier jàmmalaay ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax ñun nag ñu yegg suñuy carte ñu ngi taas fanaanal ñun ku ñu nekkal ci naaj bi ñu nekkal la ci kër gi lenn daal la soxla mooy suñu soxla mooy raakool yoo xamante ni yu ñu complétel ñu mën a yóbbu ndox mi mu jugee fi loolu daal lañ mooy suñu problème ñun daal ñu ngi sa ginnaaw daal ku ñu nekkal ci naaj bi rek ñu nekkal la ci kër gi nit daal moom ku ko taxaw mu taxaw la boo ko taxawul amul ci yow soxla te yow taxaw nga ñu dinañ la taxaw waaw amuñu lu dul jàmmalaay jàmmalaay bi ku ñu ci jàppale ñu jàppale la ku ñu ci jàppalewul amuñu ci yow soxla loolu moo fi nekk ñun nag gis nañ ñu ngi ñu taxawoo bu soobee suñu borom dinañ la taxaw chef de a baax ah. ndax mi ngi koy jàpp à cent pour cent ah. soxlaw ñu lekk soxlaw ñu lekk du naan ñun ñëpp dañoo bàyyi suñu liggéey ñëw toog pour ndox mi dem ndox mi dem yaay kenn du ki am jàmm ñun ñëpp dañuy sonn ñu amul jàmm ñun amuñu jàmm waaw kon nag loolu daal ndox la ndox mu demee daal nu mu demee ak gasoil jeex na amuñu leneen ñu soxla sant nañ la gërëm <laughs> ndeysaan gis nga xam nga fii démb kenn mënu fi woon taxaw uh-huh. démb fii kenn mënu fi woon taxaw uh-huh. mais tey ñu ngi ñëw gars ak yéen nañu fii nga xam ne démb kenn mënu fi woon taxaw dëgg la moom ngi teg sax seen i zëm uh-huh. di mais dara ca rek action réaction avec madame loolu la solution ndox mi fii fi ni ndox la woon forêt était pas ça, toutes ces maisons-là, ils allaient passer la nuit à la belle étoile. Ça, c'est votre le reconnaît. On vous, comme je l'ai dit l'autre jour la somme. C'est qui avais dit ça là-bas. Donc nous, on n'a que Aujourd'hui, même si le président est là, nous, on ne le voit pas. C'est vous qu'on voit. Le quartier est derrière vous. Parce que, comme l'autre l'avait dit, c'est lui qui est en train de vous aider. Celui qui vous lave le dos, vous, vous devez aussi laver le ventre. Donc, au moment venu, nous serons Parce que c'est au moment difficile qu'on reconnaît ses amis. On vous félicite. dama ko bëggoon wax seulement lii kii non pour population yi madame Assome depuis bu ñu nekkee fii si quartier bi musuñu jiif ministre bu mel nii moom ay ministre yu bare jaar nañu fi suñu kanam mais ku mel nii bu suñu ko gis wala ñu koy ñaanal yàlla yóbbu ko fu gën a kawee fu mu nekk yàlla dimbale ko jàppale ko parce que moom c'est une femme qui aime le partage elle a sa son pouvoir elle met ça à la disposition de la population c'est ce qu'on cherche une bonne pour la population yàlla na la yàlla jàppale yow yaa xam loo bëgg yàlla na la ko yàlla defal ñu ngi sa kanam ba fu fu fu yem ne jërëjëf